Ici, son excellence Macky Sall euh, dougalé loxom euh, ànd seex ñun xalaat instruire aussi euh, ministère, yi ak agence gouvernement pour ñom ñëpp ñu ñëw jappal ci ndax lu ñu bëgg a une vision bi mu am acte 3 de la décentralisation. Nous ñu ngi koy le 12 13 14 mars yaakar nañ tax mom si bopam mo koy ñëw présider pour que vraiment li Tëngéej am si si ci walu benen euh, axe bi moy euh, continuer liñ dan daan liggéey at yi passé yëpp ci wàllu éducation ci wàllu santé yëpp waxna né euh, hôpital Youssou Mbargane Diop tay ñun ñu ngi relever plateau médical grâce à Jetran lolu lu am solo la mais hôpital bobu bien que mu ngi ci disposition ville de Rufisque ñun tàmmali nañ woon liggéey boo xam ne il faut ñu yégalé ko ak ñom walu école yi aussi ak décentraliser aussi sunu action si yeneen collectivité locale yi defoon nañ fi mur de clôture Sangalkam def nañ fi bu Tivaouane Peulh dem nañ lycée Yène euh, dem nañ lycée Diamniadio bëgg nañ yegg si euh, at mi peut-être Bargny dem euh, côté Sébikotane laalaale Tëngéej yi si côté lycée Rufisque Ouest ak Yenen, collège yi nga xam ne nekk na fi surtout c'est yi nga xam ne dafa nekk si yàqute boo xam ne ne vraiment mu ngi bëgg doy waar lolu aussi xalaat nañ ko def xalaat nañ aussi gën a euh, liggéey si wàllu environnement ndax am na benn plan euh, territorial intégré euh, bu ñu amoon depuis existence du conseil régional Île-de-France loolu aussi plan boobu ñun ñaa ngi siy liggéeyaat te yaakaar naa gën ko revaloriser surtout que gis nañ problème climatique yi nga xam ne ne dëkk yaa ngi koy am donc ñun ñu si gën a xalaat bi si des mooy accentuer aussi si formation ak élu yi ak personnel bi déficit bi ñu amoon chaque année nous avons koy def euh, passé euh, def nañ formation sur les procédures administratives nous avons euh, sur suñu partenaires PNDL nous ngi ñaan aussi des partenaires qui nga fait ne dañuy œuvre ce loolu ñu avons vraiment conseil départemental pour ñu atteindre vraiment suñu objectif yi nga tracé nañ ko La charge locale de vie est de ngi gis ne budget bi am nañ de pratiquement 68 millions loolu lu bari la Euh, parce que euh, ba ñu tàmbalee ba léegi suñu charge sociale sociale euh, salariale day couvrir sax pratiquement li nga xam ne moom la ñu recevoir si wàllu budget si fonds de dotation mais état mu suñoo seetaan si loolu mu ngi ñuy gunge di ñu accompagner moo tax ñu amoon xalaat fan yi passé bi nga xam ne ne waa inspection d'académie bi toxu nañu ñu soumettre vraiment pour que ces locaux yi nga xamné état bi moo koy fay à travers l'agence du patrimoine bâti ñu mën ko mettre à la disposition du conseil ñuy remercier si lolu taxawayu directeur général euh, du patrimoine bâti monsieur Abdou Karim Fofana bañ ko ko waxé ba légui amul ben jamm pour vraiment mettre ñu dans des conditions yi nga xamné war nañ mëna continuer vraiment suñuy service ñu rafet lu taxawaayam ak service am di remercier aussi autorité préfectorale bi ndax lolu ak l'inspecteur d'académie ndax lolu yëpp suñ ko yombalé ñom ñoo bëgg a vraiment département bi xam coono département bi ci wala bobu mais terewul aussi état bi musuñu sétane ci lolu chaque fois que ñu leen di solliciter ñu ñuy accompagner malgré vraiment nos difficultés financières mais ñu ngi sant yàlla euh, suñu mission rek la ñuy doxal au service des populations ñom aussi ñu comprendre que lolu yaakaar naa pour très bientôt dinañ toxu déménager mën permettre aussi poursuivre ni ñuy fayee ki nga xamné né moom aussi jox nañu ay locaux depuis des années depuis notre début te mosuñoo sonnal ci daal malgré ciow yi nga xamné né jotone na sé am.